tambalé suñuy kaddu ci askanu wi nga xamanteni yépp ñom ñoo seq walu nap ci Sénégal tay ñu tan ñew daje ak ay sénégalais yu am solo yu bëgg réew mi bëgg ëllëgu réew mi daje ci ak kurel go xamanteni liñ ci yittewoo lén rek la moy nan lañuy def ba sunu wax yi ñu mën ko sam suñu gëj gi ñu mën ko sam ba caxat-caxatee bi nga xamanteni mom lañu ci nekké ati yépp ñu rombu ci ay contrat léonin loolu lañu ne dootu fi amati ñun dañu ñëw tey jii pour daje ak ñoom pour déglu leen pour signer ak ñoom ay engagement yoo xamante ni ji jël nañ ko lu jiitu ñuy daje ak ñoom loolu moo tax ñu nekk très à l'aise par rapport ak charte bi nga xamante ni moom lañu doon signer tey waaye dafa am loo xamante ni fokk mu dellu siwaat ci Sénégal te dafa tumranke ñun loolu lañ doon jëmmal tey muy kàddu gor ni ñu koy waxee jamono bu ci nekk te bëgg Sénégalais yëpp xam ko mooy duñ ci wax lu ñu mënut duñ ci wax lu ñu narut duñ ci wax lu ñu xamut engagement buñ ciy jël lekk day fekk ne mën nañ ko jëmmal. ne bu ñu ñëwee nekk président de la république géej gi ak ñi nga xamante ni ñoo ciy yëngu dinañ am tawféex. dootuñu nangooti ñuy rey napp ñi nga xamante ni ñooy napp ci ay licence de pêche suñu diggante ak beneen réew bu mu mën a doon dootuñu nangooti les navire de pêche jóge ci yeneen dëkk di jël li fi gën di ko yóbbu loolu dootuñu ko nangooti. dootuñu nangooti contrat yoo xamante ni kenn xamul ci yan condition la ñu koy signé loolu tam dootuñu ko nangu donc loolu dafa nekk engagement yoo xamante ni jël nañ ko ten fas yéene koo def. ba nga xamante ni lépp lu fi contrat bu keroog bu ñu faloo lépp dañ koy dakkal daal di def taxaw seetlu def gëstu def càmbar ba xam li ci yoon ak lu dul ci yoon liñ ci war a soppi yëpp dinañ ko soppi incha allah. di. kontaan trop ci journée tay bi. Euh, tàmbalee ko Wakaam daje ak coalition nationale pour une pêche durable waaye bi ñu dajeek pêcheur Wakaam mel na ni daje nañ ak waa Yoff waa Ngor waa Cambérène waa Hann waa Bargny waa Jiwolo waa Kayar dëkk yëpp yi nga xamante ni dañ fay def napp ba ñu fa jógee nag daal di dugg def ay ziar ci kër maam Seydina Limamou daal di ñëw fi nga xamante mooy ci Seydina Issa Sénégal li mu soxla fii ñu toll mooy jikko yu rafet Sénégal li mu soxla fii mu toll mooy njub Sénégal li mu soxla fi mu toll mooy yërmande te loolu boo ñëwee ci kër gii nga xamante ni fi lañ dugg tey loolu mooy dars yi nga xamante ni moom nga fiy jël si mooy leçon yi nga xamante ni moom nga fiy jël si yërmande boobu nag moom lañ fekk tey kër Seydina Limaamu waaye yërmande jooju it moom la ñu bëgg képp koo xamante ni bëgg ngaa jiite réewum Sénégal ñoo ngi ñaan sunu borom mu def ci sa xol ak ki sa xel ak ci sa ru yërmande ju mat googu kon ñoo ngi sant bu baax di sant sénégal yëpp di leen jox dig daje ëllëg fële nga xamante ni moom mooy Rufisque incha allah di sant bu baax jërë ngeen jëf.